الله أكبر الله أكبر micro bu ndaw dafa yàq dafa yàq أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة la hawla wala quwwata illa billah حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi sunu xutba tey mooy as sénégal taalibun fi diin wa laysa aaliman aw seyxan as sénégal taalibun fi diin wa laysa cheykha aw aalima sunu xutba tey mooy Sénégal taalibe lañ ci diine waaye duñ ci ay sëriñ loolu lu muy tekki mooy ñun Sénégal l'islam balaa mu fee ñëw fekk na yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam judd na ca makka ci weer wi naan weeru gàmm ci at mu nuy wax atum ñayya soo ko doon dëppale ci atum nasaraan mu nekk 570 milaadi ci juddu isa alayhi salaam bi yonent di gane àdduna tolloo nag juróomi téeméeri at ak juróom ñaar fukk ci juddu Isa yonent sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna tolloog juróom ñaareelu siècle islam feeñ l'islam moomu feeñ na ci juróom ñaareelu siècle ci makkatal mukarram ba mu am fukki siècle ak benn mu doog a dugg Sénégal kon diggante juróom-ñaari siècle ak fukki siècle ak benn islam doog a ñëw Sénégal kon ñaata siècle la def doog a dugg si fii juróomi siècle juróomi siècle islam ñëw Sénégal nga xam ne ba mu amee juróom-ñaareelu siècle la yàlla yónni Muhammad kon naka la ñuy waxee ñun Sénégal danoo yor sunu lislaam ñaata lislaam ñoo am sunu boroom jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu moo wax ci alquran inna diin inda allah al islaam diina ci yàlla mooy lislaam amul beneen diine mu ne wa man yabtagi gayra al islaama diinan falan yuqbala minhu képp ku jël beneen diine bu dul lislaam yàlla daf la koy delloo kon islam benn la sunu borom moo ko wàcce ci kan sayduna muhammad moom yonent boobu alayhi salaatu wasalaam yàlla jox ko lislaam moom moonu jàngal lan mooy lislaam nekkul lu keneen jàngale lu keneen jàngale wala lu keneen gëm wala lu keneen def yow la concerné amma l'islam bi wér yàlla jox ko muhammad aw dundin la yàlla boole koog alquran kuy wax islaamu sénégal wala l'islaamu makka wala l'islaamu france wala l'islaamu amérique da ngay teg alquran nga natt l'islaam yooyu nga seet ban moo ciy dëgg beneen mooy mbokk yi foog mu xam ne li nu wax léegi nun islaam duñ ci ay sëriñ ndax mbir mi rawee nanu juróomi siècle juróomi siècle nit munu la koo rawee ba pare nga ne yow yaay sëriñam wala mbir mi yow yaa ko ko gën a xam wala mbir mi yow yaa ko koy jàngal ñun ay toppekat lañ ci islaam waaye waru nun noo topp kenn dong la nuy topp mooy ar rasul atiu llah wa atiu rasul ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illah wa rasul wattaqu llah inna allaha samiun basir yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla ak yonent bu leen jiitu yàlla ak yonentam kon mbokk yi il faut ñu xam yajibu an nafhama mafhumu lislam alhaqiqi il faut ñu xam dëgg-dëgg lan mooy l'islam la sakka an almuslimin al awail lam yafhamu min al islami ma nuridu nahnu al yawma an nafhamahu fi asrina al hadir suñuy xool lislaamu démb loolu ñu naan mag ña alhamdulillah mag ñooñu nanu dégge woon lislaam ak ñun tey nu nu dégg lislaam du benn tey ñun jàpp nañ ne lislaam julli kese la boo paree laxas sa der jël sa musóor bu dee jigéen sànni fële bu dee góor nga lem sa sijaada teg fële ne yàlla ba julli jotaat ma ñëw dundaat l'islam ñun noonu lañ jàppe l'islam Sénégal dafa ne loolu mooy l'islam nga nekk ci lu la neex boo demee jàkk nga toog julli boo paree nga dem nekk ci lu la neex ba julli jotaat nga ñëw su weeru koor jotee nga woore ni mu la neexe su aj màkk jotee nga aji ni mu la neexe ñun loolu lañ jàpp mooy l'islam fekk du loolu ixwatal iman wa anna al is insan yastatiu an yatawajjaha ila allahi xaalisan fi asna ibadatihi islam mooy ab jullit mboolem jubluwaayam lu muy def ci kaw suuf dafay xool ni ko yàlla bëggee mu defe ko noonu loolu mooy lislaam ni ngay lekkee ni ngay naane ni ngay solo sa dëkkuwaay soxna si ngay nekkal boroom kër gi ngay ut lépp islaam la l'islaam amul jël lii bàyyi lii afa tuminuuna bi baad alkitab wa takfuruuna bi baad فما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أسد العذاب وما الله بغافل أما تعملون sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na ndax da ngeen di gëm lenn diine weddi lenn afa tuminuna bi baadil kitaab wa takfuruna bi baad xam ngeen lan mooy fayu ki def loolu gëm lii bàyyi lii fama jazaau man yafalu zalika minkum xam ngeen lan mooy fayu ki def loolu illa xizyun fi lxayaati dunia loolu yàlla dina ko toroxal ci àdduna loolu moo tax tey ñu torox c'est parce que danoo jëlul l'islam lépp dañ ko xaaj dañ ko def ni mu nu neexee buñ nee tabaski dañuy lekk ba suur ñëpp ne waaw waaw buñ waxee yeneen yi nga xam ne dafa am lekk ak naan yëpp ñu gëm ko waaye buñ waxee ne ni yàlla bëgg nii la ñu ne déedéet loolu moom nanu xaar ndax loolu xamuñu ko ndax loolu mag ñi ndax loolu mag ñi yan mag bu fekkonte ne lii nu nekkee loolu la Cheikh Ahmad Bamba nangu woon du dem géej wallahi bu ko nangu woon du dem géej keroog bañ koy génne di ko dugal ca gaal ga di ko yóbbu lan la wax axrijtumuni naatiqiina bi anni la abdul ilahi la mujahidu su nangu woon lii nu nangu tey wallahi du dem nun ni ko nangu defu nun dara kon l'islam nanu xam ne mooy lu yàlla bëgg l'islam mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon keneen ku wuutee njàngaleenu yonent ci beneen islam sa sa islaamu bopp nga nekk mais nekkoo ci islaamu sayduna muhammad l'islam amul tàqalikoo l'islam amul islam gu weex amul islam gu ñuul islaamu africain islaamu arab loolu amul ci benn diine amul ci benn kër li ko waral nag lii mooy ñàkk a jàng diine sunu ñàkk a xóot ak islam li mu nu raw juróomi siècle doog a dugg Sénégal looloo tax mënuñu xam lan mooy l'islam l'islam balaa muy ñëw Sénégal fekk nekk na zirik bu doon soow la ñu ne zirik la zirik c'est cinq siècles cinq siècles benn at rek lu doy waar la waxuma laak nag cinq siècles ngeen doog cee jot loolu moo tax mënuñu xam lu leer li waaw gootoy mawɓe fulɓe o wi nde islam arata sénégal taw ko nangue ina muti o wi oɗon gandi nangue sina muti sina muta dañat lewlawal daña ko niɓɓiɗi daña ko leeri o wi ko dogno jaggi eko leeri ko koy ko leeri ko heddoto ko jagguno eko niɓɓiɗi ko koy ko niɓɓiɗi ko mayata ɓe jaggata diina ha janggo lakara yowma alqiyamati sérigne boobu ndeysan moom ɗon jangal alfalah mu ne islam bi muy dugg sénégal dafa fekk timis di jot waxin la nag waxin la dafa fekk timis di waaje jot mu ne xam nga timis buy jot day fekk jant di so jant buy so day am lu leer am lu lëndëm mu ne boobu nag l'islam di ñëw heure boobu la ñenn ñi tëb jàpp ci lu leer li ñenn ñi tëb jàpp ci lu lëndëm li mu ne ñi jàpp ci lu leer li ci lu leer li la ñuy dee ñi jàpp ci lu lëndëm gi noonu la ñuy dee dem yowmal qiyaama kon dafa jot ci ñun sunuy wax l'islam ñu xool ban l'islam la est-ce que bi Seydina Muhammad indi woon la wala sunu l'islaamu bopp Afrique amul islam Asie amul islam Amérique amul islam Europe amul islam islam kenn moo ko am mooy yàlla islaamu yàlla bi nag yàlla moo wàcc aw téereem wax nuñ ciy dunde nekkul ne ñun ñun ñooy tànn déedéet nekkul ne ñun ñun ñooy tànn waaye yàlla moo nu wax ne nii ngeen di dunde su fekkee ne nun ay jullit lañ yàlla mu ne nu nii ngeen di dunde wallahi noonu rek lan war a dunde amul neneen nun war a dunde lu dul ni la yàlla wax ixwaani haza huwa al islam lii mooy islaam huwa islaamu nafs kulluha lillah mooy nga jëbbal sa bopp jox yàlla sa bopp lépp yàlla la sa dugg ak sa génn inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya liman lillah waaw samay dugg samay génn sama lekk sama naan sama rendi lépp lu may def kan laa koy defal yàlla subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa aza kamaluhu huwa an yakuna kiyanu l insan kullahu mutawajjihun ila allah doomu aadama bi jullit bi léppam na ko jubal yàlla subhanahu wa taala na ko laaj yàlla yow yàlla lan lay def yàlla ne ko lii la mu def loolu su fekkoon ne ne tey comprendre nañ loolu danañ dund ci àdduna aljanna suñ demee àllaaxira ñu dund aljanna parce que problème amu fi ñàkk a dégg diine bi même erreur yi ngay dégg sax ay jullit di ko def ñàkk a dégg diine la waaye diine bi bu leeree rek jullit bi dootul tarxiis su diine leeree ci yow sa bopp nga xam lan lan la jàngal lan lan la wax ci yoonu yàlla ngay nekk subhanahu wa taala ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo orienté woon gaaña yonent bi moo ñëw fekk xeet wuy naan sàngara xeet wuy njaaloo xeet wuy def lu bon am doom léegi gas ba mu xóot muy dund di la xool nga suul ko muy dee yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñëw dindi loolu ci bopp nit ñi yonent bi moo ñëw fexe ba bàyyi gaa yi bàyyi garab yiñ doon jaamu xeer yiñ doon jaamu ndox miñ doon jaamu rab yiñ doon jaamu jinne yiñ doon jaamu yonent bi ñëw jubal leen ba ñuy jaamu yàlla subhanahu wa taala jaamutuñ kenn yonent bi ba mu demee loolu la fi bàyyi laaj leen amr keroog bañ ko yónnee ca maarikatu qaadisiya ñu yónni ko ci rustum moom kenn ba muy dem mbaam la war mi ngi gàddu xeejam jaasee ma ngi ci mbar mi mu dugal moom yonente alayhi salaatu wassalaam amul lenn lu mu def lu dul jàngal gaa yi diine yar leen ndeysaan wàññi leen leeralal leen diine ba mu leer moom yonente alayhi salaatu wassalaam moo tax amru ba mu demee ci rustum ba muy dem mbaam la war tapis rouge lañ ko lalal tapis rouge pour lan pour jéem ko lëndëmal ak jéem ko nax pour jéem ko waaye ba mu ñëwee ndeysaan ñu tegal ko seize or moom amr lan la def ci basang yi ñu lan la toog rustum ne ko waaw yéen lan moo tax ngeen génn war seeni fas gàddu seeni ngànnaay tasaaroo ci kaw suuf di xeex guddeeg bëccëg lii lu ko war mu ne ko ji'naa li nuxrijakum min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad ñun daal suñu tasaaroo ci kaw suuf du leen lu dul génn nit ñi rek ci jaamu xërëm yóbbu leen ñu jaamu yàlla ji'naa li nuxrijakum min diqi dunya ila si'ati al axira wa min jawri al adyan ila adli al islam wa min jahimi al ma'siya ila jannati al taa loolu la rustum tontu keroog loolu la amr keroog tontu rustum kon loolu moo lay wan ne l'islam lu leer naññ la ci ñi ko comprendre nag ñi ko jàng ñi ko xam waaye réew mu mel ne Sénégal nga xam ne jànguñu diine inna wajadna abaana ala umma la ñuy dund wa inna ala atharihim la muhtadin lan mooy diine Sénégal tëgg guddeeg bëccëg fecc lan mooy sunu diine def yaramu neen lan mooy sunu diine ay góor yuy bënn seeni nopp di kiris karas seeni tubéy di fecc guddi ak bëccëg wa rabbil kaaba démb ci guddi téléchargé naa ay jàng yoo xamante ne mu ngi sama page Facebook wa rabbul kaaba ñu ne loolu jàng diine la fekk sabar la fekk sabar la loolu mooy diine mag ñi est-ce que loolu la fi mag ñi indi woon est-ce que loolu mooy diine yàlla dañu wax nit ñi dëgg dañuy dee waaye diine yàlla ji mbokk yi ku jóg bu ko xeex da ngay sonal sa bopp mbokk yi ana professeur Sankare ana Sankare barki démb la doon xeex islam bindi téeréem naan alquran culture grec la Seydina Muhammad dafa jàng anamu tey ba nga yowmal qiyaam te balaa muy génne àdduna dégg ngeen yéen ñëpp ci journaux yi ak ci rajo yi ni mu ni mu génne àdduna lislaam a ngoog yàllaa ko moom sama benn sëriñ daf ma doon wax ne su ma duggee ci makkatal mukarram ci kaaba gi ma dégg ñu ne allahu akbar allahu akbar mu ne abu jahlin fen na de lii la bañoon mu jëm kaw dem na kaw diina yàllaa ko moom sunu borom subhanahu wa taala mu ngi nuy wax ci alquran alam tara kayfa faala rabbuka bi aad irama zaati limad allati lam yuxlaq misluha fi lbilad wa thamuda allazina jaabu saxra bilwaad وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد يلا نينا نان لا موجي نيوم فصب عليك فصب فصب عليهم ربك صوت عذاب ñu ne yàlla foofu la mu ne déedéet inna rabbaka la bir mirsad kon diina ji mu ngi noonu diina ji moom mooy sunu diine boroom lam yafham almuslimuna min alshahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah annaha kalimatun tuqalu billisan duna an yakunu laha madlulun mustaqir fi amaqi nafs julliti démb yi comprendre ñu woon la ilaha illa allah muhammada rasulullah comme ñun nin ko dégge tey jàpp ne su ma waxee la ilaha illa allah jeex na moo tax gis nga la ilaha illa allah bu sénégal bokkul ak la ilaha illa allah bu sahaaba yi allahu akbar la ilaha illa allah bu sahaaba yi bokkul ak sunu laa ilaha illallah ñun sunu laa ilaha illallah fan lañ koy fan lañ koy fecce ci mbedd mi ay xiin lay àndal ay kappar ñi lay àndal ay périer lay àndal lamb bi lay àndal bàkku bi lay àndal baar bi lay àndal sàngara si lay àndal sigara si lay àndal yamba bi lay àndal sunu laa ilaha illallah amma laa ilaha illallah bu sahaaba yi Moussa dane yàlla xamal ma benn baat su ma la ko ñaanee rek lu ma la ñaan nga may ma yàlla ne ko Moussa waxal laa ilaha illa allah mu ne yàlla loolu ñëpp xam nañ ko ñu ngi koy wax déedéet ñëpp dégg nañ ko waaye mënuñu ko wax yàlla ne ko Moussa su ma jëloon asamaan yi juróom-ñaar suuf yi juróom-ñaar ma teg ko ci balance ma jël laa ilaha illa allah ma teg ko ci balance mu ne la maalat alayhinna laa ilaha illa allah moo tax baat du baat bu ñuy wax kese naan laa ilaha illa allah loolu moo tax ñu bëri si ñun mënuñu ko wax da ngay gis ku yor course bu am téeméeri per amul lu mu wax loolu laay laay la laa déedéet du baat bu ñuy wax kese loolu moo tax yéeféer yi sax démb boo demee da ngay dégg ibnu taymiya di la wax ci usulu salaasa ne la yéeféer yi démb ñoo gën a dégg julliti tey laa ilaha illallah loolu moo tax bi leen yonent bi waxee wax leen laa ilaha illallah ñu bañ ñun tey xoolal parce que dégguñu ko moo tax ñu nangu koo wax yonent bi waxoon na arab yi wax leen laa ilaha illallah tuflihu ñu bañ parce que xam nañ baat bi soo ko waxee dund la mais nekkatul rek lu ñuy wax da nga koy dund ñun nag dunduñu ko kon bunu bunu nax bunu nax nan nu wax dëgg islam amul Afrique islam amul Europe islam amul États-Unis islam amul fenn islam islaamu yàlla la kenn moomu ko kenn moomu ko yàlla moomu nag subhanahu wa taala su ne nii nii noonu la waaw sunu benn borom xam-xam nee na bu yàlla bu la yàlla digalee ne la defal yàlla rëdd aw yoon ne la jàllal nga effacé yoon bi ne ko yàlla jàlluma yàlla effacé waat tër rëddaat ne la jàllal nga ne ko yàlla jàlluma nga effacé rëdd bi balaa yàlla rëddaat ligne bi day xar suuf si nga dugg mu rëdd sa kaw ne jàll leen gaa yi jàll ku wedd laajal firawna bu mu indee ay soldaaram ak léppam dafa ne moom la yàlla ne fa nabaznaahu fil yammi wa huwa mulim ku weddi laajal namruud bi mu mbëroo ba beew ne day rey yàlla laaj leen ko yàlla yoo la ko booleel yoo yoo ad'afu maxluqin fil xalq li gënal yàccaaral ci kaw suuf moom la ko yàlla booleel kon bokk julit yi laa ilaha illallah du lu ñuy wax nii rek aw dundin la laa ilaha illa allah ñaari baat la nafyun wa isbaat day digale day tere soo nee laa ilaha dàq nga illa allah samp nga balaa ngay lal sa néeg sax da ngay bale ba pare wallahi sa werti a fittaani sa lelima danataako hadema wertude leso ngo a fiɗɗay werta fitta werta sa lelima ɗanoɗa kono sa ari a tawiri suudu ndi suudu ndu ina waɗi balɗe nogas udditaka a ari tan a fukkima e leeso ngo a ɗanima a ɗanotako bala ngay lal da ngay bale da ngay fahas doga lal so tëdde nga nelaw bala nga ne illallah da ngay wax la ilaha waaw amul topp amul gëm amul ragal amul tiit nga doog a wax illallah soo sampee mu dëgër fondement booy gas fondement bi boo ko deful ba mu xóot nga def brique yi 4 3 nga samp wallahi du dem boo ñëwee ci kaw suuf si rek nga tabax da ngay mel ne kulaax géej kon islam du bu Sénégal islam du bu Afrique islam du bu États-Unis islam du bu France islam islaamu yàlla la inna ad-din inda allah al islam wa man yab yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله il faut ñu xam ne la ilaha illallah lu ci tegu mooy muhammadan rasulullah kama fahimahu min shahadati anna muhammadan rasulullah huwa الرسول المعتمد لتبليغ هذه الرسالة هذا الهدي الذي يلزم البصر بطاعته واتباعه وأنه هو المبلغ عن ربه الذي ينبغي طاعته مع طاعة الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا mbokk yi jullit bi su waxee laa ilaha illallah loxo ndey jooram ne yëkkati loxo càmmoñam mu ne wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu mooy lan sa baaraam bi nga yëkkati naan seede naa muhammad yàllaa ko yónni loolu dafa am lu muy tekki li muy tekki mooy huwal mu'tamad kii mooy kii laay sukkandiku kii moo ma jottalil sama diine kii moo ma ko leeralal kii moo ma ko jàngal kii mooy kii yell ma roy ko ma dëgg jox ko sama nopp moom kese loolu mooy muhammadan rasulullah loolu tax yàlla wax ci alquran ne ko wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi iznillah amul benn yonent boo xam ne yónni naa ko man yàlla lu dul wax naa nit ñi nañ ko topp ndax topp yonent boobu mooy topp moo man yàlla yàlla mu ne sax waxuma xuma nañ ko topp waaye dama ne nit ñi la mu leen indil jël leen la mu leen tere bàyyi leen wa annahu sallallahu alayhi wa sallam huwa tatbiqu al amali al hayy li risalati as-sama yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ñëw di ñu jàngal li yàlla bëgg nu dunde ko ci kaw suuf moo tax gis ngeen lépp lu ñuy def suñuy takk sëy dañ koy takk ni ko yonent bi takke woon bu ñuy tudd doom dañ koy tudd ni ko sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam tuddee bu nu amee néew bu faatoo ñu defe ko ni yonent bi wax waaw kon léegi naka lañ bëggee tànnee yenn nii rek ñu bàyyi leneen kon war na noo wax nun ni ñuy solo est-ce que yonent bi noonu la wax ñu ne Sénégal ci kanam tuuti fii ak dañuy tere jigéen ñi ñu muuru kon léegi lan la wax mooy jigéen ñi nañu paccal nanu nanu xóotal ah nanu dangal loolu la fi diine loolu la fi mag ñi bàyyi woon loolu mooy diine mag ñi pourtant yéen a nangu jigéen ju muuruwul du jullit de yéen a ko nangu yéen waa Sénégal waaye Cheikh Ahmad Bamba nanguwu ko Cheikh Ahmad Bamba moom nanguwul woon jigéen ju muuruwul nekk jullit lan la wax lan tanaali lan tanaali diinan yaa Zeynab lan la wax yow Zaynab doo mën a am diine hatta tataxammar lu dul da ngaa muuru lan tanaa li la wax doo mën a nekk jullit yow jullit bu jigéen bi waaw kon nu ñuy waxee sunu dot sunu njaboot en tant que pays musulman quatre-vingt-quinze pour cent musulman naka la ñuy waxee ne nangam ak nangam dañ ko fiy tere waaw loolu nuy tere ndax woo nañu nit ñi ba laaj leen yii li ngeen di def fan ngeen ko jëlee kan moo leen ko sant est-ce que diine la est-ce que alquran la est-ce que sunna la foofu moo jëkkee balaa ngay tere da ngay woo nit ñi laaj leen lii ngeen di def waa est-ce que ñii di dangal ci mbedd mi woo nañ leen fu ñu ko jële ñii di paccal jigéen ñii di tox yamba di naan sàngara wala jigéen ji ñu jàpp démb muy tox yamba ñu laaj ko da nga doon tox mu ne toxuma woon dama doon naan mal farq bay na tox wa naan jigéen jigéen loolu lañ bëgg wallahi bëgguñu lu dul ngeen bañ a yar seen njaboot ngeen bañ a orienté seeni famille ba ñu bàyyi yàlla topp tubaab suñ demee ba Sénégal jigéen di naan sangara waxuma loolu ñu ne ko da nga doon tox mu ne te sax journaliste yi sax façon yamba bi bi muy tox sax nee nañ du bu ndaw bi ci jigéen te du benn jigéen ay jigéen waaw loolu moo jar a wax fekkee dañoo war a wax wallaahi gis nañ lu ñu wax bu dee dañoo bëgg tere gis nañ lu ñu tere bu dee dañoo bëgg réew mi baax xam nañu réew mi fu ñu koy jaarale mu baax waaw réew moo xam ne nee nañ ku nekk nañ la bàyyi nga gëm góor jigéen bi nañ ko bàyyi mu nekk jigéen góor jigéen waaw ki jaamu yàlla kese alquran ak sunna ñu ne doo ko fi jaamoo est-ce que loolu yenu na maanaa musidal fulɓe taggal yettude allah e julde ne laaɗo men mouhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam anden diine l'islam koto allah ummi ala diine ummiɗo to afrique walla diine ummiɗo états unis walla diine ummiɗo diine ko gooto koto allahu subhanahu wa taala ummi ko nelaɗo yoni mo o yoni nela nelaɗo sa sallam ari jangguinden holko woni diine kala ko goɗɗo haalni en ko wona ɗum ɗon o funtat en imam malik wi ko wonano diine hanki wawa wonde hande diine anden ko wiyete diine afrique diine france diine to diine to ɗum ɗon wona diine diine koko allah wi nelaɗo wi ko ɗum woni diine kala goɗɗum ko haalne ɗon ko wona qala allah qala rasul qala salaf wona haydara nam kala ko haalne ɗen e diine ɓe wi ko ɗum ɗo watten yen ƴeew ɗum ɗon est ce que ina dakkodiri e ko allahu subhanahu wa taala yamiri en so tawi ɗum ɗon ina woodi ganden ko ɗum ɗon woni diine so tawi ɗum ɗon ala anden ɗum ɗon wona diine allah subahana wa taala wiya qur'an inna dine inde allah al islam diine to am ko islam tan goɗɗum wona diine kala ko neɗɗo jogui ko wona islam o funta e hoore makko allah wi janggoni yowmal qiyamati o pertat wa man yabtagi gayra al islama dinan falan yuqbala min allah wi mi jaɓantamo falan o wi falan yuqbala min o ta- o tampinto hoore makko te jarani hulde sa huli ka maayowo sa hulani ka maayowo sa rewi allah ka maayowo sa rewani allah ka maayowo aɗa andi holko woni ko wajibi wiyata victoire yaha e allah te a rewani hay goto sowona allah yaha e allah te a hulani hay goto sowona kanko yaha to makko te ɓernde ma nde ina heewi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ɗum woni gonga goɗɗum foof ala nafoore jarani neɗɗo ina ina filtina hoore mum toon ina ƴeewa ala ganden allahu subhanahu wa taala ko nelaɗo o rewi o- o neli o wi en atiu llah wa atiu rasul ndewe allah ndewe nelaaɗo bokk julit yi ginnaaw loolu am nañ fii sunu benn dëkkandoo sunu benn mbokk fii lay jullee ci jàkka ji waaye ay weer a ngi nii gisatuñ ko fi ndekke dafa feebar feebar boo xam ne ah yàlla rek moo xam de ku nekk tiit nañ sa feebar waaye moom tamit tiit nañ ci bosam waaye nag jullit yaakaar la am ak ñaan yàlla ak tàllal say mbokk jullit loxo mbokk boobu feebar na ñaari feebar dafa feebar ci yaram feebar ci kër te xam ngeen feebaru kër instant yu ñu toll rek doy na feebar waxuma laa nag nga feebaraat yaram ba yow ci sa bopp amatoo confiance sa bopp ne da ngay wér loolu moo tax mbokk jullit yi dajale fii dajoo fii keroog ñu ne nañ ko ñaanal mbokk yi ndimbal ñu jéem a xool nu ñuy def ak hôpital bu ñu koy yóbbu yan docteur lañ koy booleel pour yàlla subhanahu wa taala oyofal ko feebar boobu kon bu ñu jullee ba pare mbokk yi kenn ku nekk ci ñun loo am nga mun ko fàtte ngir yàlla ndax mbokk boobu biisnillahi tabaraka wa taala ñu ngi lay tàllal loxo nga jàppale ko allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna tinaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله